kontaan en tant que champion parce que dama da wax toujours ne champion du dem ci lamb ji di beure rek fay doon lo xam da fay continuer ci dundu doomu adama bi euh, yalla def nak tay action yi ma ci njëkk def ma commencé ko école 2 ak école Khalid Ibn Walid nga xam ñaari école yoy la jangé muy fierté ci man parce que li tax mu gën ma neex bi ñëwé ñaari directeur yëpp seen mebet mo doon naka lañuy def ba bok ci couverture maladie universelle te xamuñu won fu ñuy jaar kon bi yalla défé ma xalaat ni ñaari école yoy dam leen war enrôler vraiment bëkté rek la ci mëna am gis ngeen for bi tey jigéen ñi daanaka liggéeyuñu te heure bi daf leen doon fekk seen diggu activité ñu bayiko kon xeyna na nañu ak ñun xalaat le président de la république bi à la euh, couverture maladie universelle ce la woon mooy ñu def ci action mais nous ñi aussi dem ci mutuelles de santé en tout cas nous ngi invité la couverture maladie universelle nous ko def pour mutuelles nit ñi de santé yi parce que nous na te amal na parce que nous on a fay moo tax daal kontaan surtout presse bi taxawaay bi ndax tey lii du pour Joal rek dañu bëgg mu daj àdduna surtout Sénégal nit ñi xam lan mooy couverture maladie universelle. déedéet ñoom dafa am taxawaay bu ñu ci war def mooy fexe kër gu ne ñu fexe inscrire ñëpp yóbbu leen ci mutuelle de santé yi foofu lañ leen di xaar. waaw dañu gunge si woon champion bi Yaxya Diop Yékini mi nga xam ne mooy ambassadeur

Sénégal bi yëpp dañ ko war a dañ ko war a topp ñuy ñaan ñi nga xam ne personnalité la ñu ñi nga xam ne ñoo am doole parce que solidarité bi mooy ñi am ñoo war a jàppale ñi amul ñi feebarul ñoo war a faj ñi feebar donc di ñaax ñëpp sénégalais yëpp ñu topp exemple bi nga xam ne tey Yaxya Diop ni da ko teg muy que ni solidarité ci lépp solidarité la lépp mën a sottee di gërëm Yahya Diop ci geste bi mu def tay di ñaan Sénégalais yëpp ñu top exemple bo xolé ñun ci ci ci dëkk yëpp ci région Sénégal yëpp dañ fa am service régional té tamit mutuelle de santé bo xamné dañu organiser commune yëpp amna mutuelle ba pré département yëpp am li union départementale départemental ak accompagnement wu tamit service régional bi nga xamné tay suñu chef de service régional jël na cadre docteur Mbacké Madior Fall pour wax pour ñaax askan bi ci programme couverture à la maladie universelle nu muy doxee ak nan la nit ñi di bindoo ci mutuelle de santé yi moo tax ñoom tamit loolu mooy seen rôle au quotidien ñu toog ak population yi di leen accompagner di leen gunge di leen ñaax di leen tàggat ci nan la couverture maladie di doxee moo tax dinañ fi delluwaat ñoom tamit dinañ fi dellu siwaat le ministre Mansour Faye ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale à travers le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle le docteur Bokar Mamadou nous ñu engagé campagne de parrainage de 1 million de femmes et d'enfants dans la couverture maladie universelle. ñu ko Diop Yekini roi des arènes nga ci lamb ñu toute la journée à Joal mu defone bobu def def ju reuy bu am solo parce que dafa enrôler élèves yi nga xamné fofu la doon jangé muy école 2 fofu la defee primaire ak école franco arabe fofu la jangé ñom ñëpp ñu duggal leen ci couverture maladie universel. boole ci nak demaat te quai de pêche ba ci ñi nga également ay yenen femme entrepreneur duggal leen ci couverture maladie universelle mu ne duma yem ci lolu damay dem ñaaxar tegg fa lam reuy rëy ak également le directeur des opérations muy man mi Serigne Diouf nous, ñu également également en tant que fils de Nyahar, nous avons enrôlé 1000 élèves dans la couverture maladie La couverture maladie universelle assurance bi annuelle. année la nous est la renouveler Inch'Allah. Et également comme lamb l'arbitre wax arbitre yi nga sommes dans l'arrondissement ngi ñu mot lu mekk téeméeri arbitre ak staff yi nga xam ne dañu yënga ci lutte nañ leen jox seen carnet tey parce que dugal nañ leen ci mutuelle de santé bu ñaaxar loolu également buñ ko defee c'est pour répondre à l'appel du chef de l'État boo xam ne dafa bëgg solidarité nationale ñu wéyal ko ci réew mi dafa bëgg képp koo xam ne tane nga sa morom nga mën ko jàppale loolu la Yaxya Diop def loolu la également la ñuy def ñaaxar ñu ngi woo également képp kuy sénégalais ñu ngi koy def également

loolu la également directeur général agence couverture maladie universelle docteur Bocar Mamadou Daaf xam ba tax na également ñun ñi nga xam ne dañ ci liggéey guddi ak bëccëg ñu ngi ci terrain bi di wut ay partenaires pour ñu jàppale ñu ci sensibilisation boobu nit ñi mën a dug ci mutuelle de santé. mu doon lu bis bu am solo ci ñun président de l'union nationale des mutuelles de santé communautaire du Sénégal ànd ak El Hadj le premier vice président ak aussi le président Ndour de la de Niakhar.

ñi ngi ko do commencé woon ndakaaru jóge nañ ndakaaru région yi danañ jëngatu Fatick lañ ko tàmbalee tey yax yu jóg ubbiko wax dëgg yàlla li mu wane Joal wane ko fii tey tedd na suñ xol yaakaar am nañ yaakaar ni buñ ci jógee Sénégal yëpp dinañ mën a suivre pour que ñi nga xam ne amuñu doole ñu mën leen a jàppale bañ dugg ci mutuelle de santé